Ganja music, reggae music, Jamaican choose it, European, American, and the Caribbean. Why yo? Rasta got soul, reggae music rocking my bone, my bone. asalaamualeykum mbokk yi di wax ne rek àdduna yéen nii ni ñuy def rek mooy ñu baxee yëpp ci loxo yàlla wala àddina wala kuñ koy baxee ne ñu ñu si bëri fi mu ne sax gëmatuñu yàlla subhanallah moo tax ñuy jaxle trop ak foog ne àddina si mën nañ koo contrôle mënuñoo contrôle àdduna si mënuñoo contrôle nit ñi mënuñoo contrôle nit ñi jut sax boobu das the reality ngay diggal rek yedd baleen suñ la dégloo noonu la suñ la dégluwut noonu la ndax yéen nii daf lay indil naqat ak fitna boo xam ne doo ci jëlee lu du sa àdduna bu yàqu ak naqat bu bëri gaaw a rey nit kon nag ngir yàlla nañ leen bàyyi àdduna bi ñuy jéem a contrôle nañ sorenda nañ jàng nu ñuy mel ni ku juddu xaat xees jàng nu ñuy buggee jàng nu ñuy baxalee jàng nu ñuy defee ndànk rek jël àdduna def ko muy ndànk ñu jël suñ everyday life ba bu set suñu xëyee ñu def ndànk rek ba wàññi xalaat yi wàññi jaxle yi wàññi defante yu hëpp yi calm down suñ ko defut lu ñuy jàngal gune yi dee jaaxal na ma maa ngi ñaan jàmm si ñun ñëpp. hello guys life is all about doing all the things that you are afraid of doing that are positive keep doing it you will get there don't use all the negative reason why you shouldn't do it keep looking at all the positive reason why you should do them good luck. surrender to life guys surrender to life it will change your life surrender the pain surrender the worries surrender the fear. surrender the doubt, surrender the thinking of what's going to happen tomorrow or what's happened in the past. Surrender the pain. Surrender everything is the only way out, guys. Surrender to life. Reborn. Learn to love again. Learn to be genuinely happy. Learn to appreciate yourself. Learn to stop controlling life because the reality is we cannot control life. We're just one individual. We cannot control life. Learn to be disciplined if you are not disciplined. Discipline is everything, guys. I wish I knew how important this is in my early age. Learn to be disciplined. Learn to have self-control. It's going to change your life. Learn to also surrender to life. I'm going to repeat this. Surrender to life, guys. You cannot handle it. Just surrender. sañse sama yëf la kay leen seetaan ni ma mel ni ma mel de neex na ma fu ma romb dañu naan kii de sañse rek lay def ma mel ndaxte sañse sama yëf la kaay leen seetaan ni ma mel ni ma mel de this really will be my last comment, but this comment really got me heated. You could understand her perspective. You know what? Our grandparents used to walk eight miles back and forth to school because there was no buses. So what does that mean? You know what? This is exactly, again, why men are given permission to cheat. Why some men are given permission to cheat. Because all these different women have all these different opinions. So you mean to tell me if a woman says, I know my worth, you ain't worth shit. You ain't worth nothing. You give me permission to do whatever the hell I want to. Why we even together? If we can always excuse my cheating ass, lying ass behavior, why you even with me? If I could fuck every other woman, why you with me? Why you with me? This is bullshit. That's why some women get fucked over because of fucking thinking like that. And it's okay. allo bokk yi asalaamualeykum alhamdulilah barikàlla man de maa dikk di wax ne jërë ngeen jëf ci suma channel bi ngeen topp xam nga channel xaw ma suma tiktok bi <laughs> tiktok bi ngeen topp di like di share di comment jërë ngeen jëf yàlla rek leen mën a fay di leen ñaanal fanu gudd ak wér gu yaram ak wursa bu bëree bëree bëri ak dal ak happiness man de ah, tiktok bi ma ko bugg a use pour comédie ak pour motiver. because dama nekk ci healing journey bugg a jos ñun ñëpp ñu xam fan wu gudd wér gu yaram xam jàmm ku si xam naqat nga mm. jàng ni ngay fajee naqat wi ba sa àdduna gën a dal gën a neex loolu la channel bi all about so jërë ngeen jëf <coughs> oh my god <laughs> but somebody serve to all the born herds. the Rastaman, cause he's the only one, only one left in job creation. Nobody can stop reggae, nobody can stop reggae, nobody can stop reggae, alaikum guys. laftafola en mandinka dron pour ntolye surrender to life when i say surrender to life i don't mean like ntol ton tente ntola life plan na ntolye just relax and like yeah i've surrender to life yeta kujawol ke no surrender to life by uh, uh, minimizing worry itela mira lo kana mira too much ye worry so much ya mira itela dunia ta bete yala wala ya mira ko femi xamana ka inyanta e femi mun soto la ima e soto So render to life, ya bebula dunya bulu drong ya bula alabulu. Everything will be good. You think positive. You just work on things that you have to work on. Barikana ke fanang ye lack of discipline. Try ye learn how to be disciplined. Fengon mi yalo amambete ya ye fan kulu, ye fan discipline, ye try ye fata wolye, ye alamuta, ye surrender to life. That's the only way, guys. Nintol ka fight, ka life control, ka mole control, ka worry too much. a life le tinya la drum, told we Reggae in the bathroom, reggae in the bedroom, reggae everywhere. Reggae in jail, reggae in church, everybody likes it. They tried to kill it many years ago, killing the prophets of reggae.